li ma mën a wax avant may jox kàddu gi le président Mamadou Diop Decroix mooy Macky Sall amul victoire électorale ci élection bi ñu jógee mais dafa encadrer une victoire technique kooku nag wax nañ ko ca njëlbéen bi mu écarter opposition bi ci processus électoral bi maintenir le ministre Aly Ngouille Ndiaye alors que ñi ko fi jiitu ñëpp fexe na nu loolu amul ci la waxee woon ni day préparer une victoire technique te ci li leen nar a présenter léegi yéen ci seen bopp daa ngeen gis loolu. 2016 bi ñu watee ci référendum bi ñoom dañoo wax ne ci extérieur maanaam bitim réew. ña fa wote wote nañu ci junniy bureau ak ñaar téeméeri bureau ak fukk ak ñett mille deux cent treize bureau de vote waaye boo demee ci fichier électoral xam naa gars dinañu génne nangeen ngeen génne chiffre yi incha allah boo demee ci fichier électoral bi à l' cinq cent et jàpp 600 bureaux de vote moo fa am président la république signé décret wax ne la amoon ci élection 2011 2012 kenn du ko changé ci référendum maanaam mënee suta changé nombre de bureaux de vote yi am étranger ak bureau bu ne fa mu nekkoon kenn du ko soppi décret la ba ñu référendum ba pare ñu gis ne ñoom wax nañu ne bitim réew am na junni bureau ak ñaar téeméeri bureau ak fukki bureau ak ñetti bureau te fekk ci kayit yi juróomi téeméeri bureau la ak lu topp dinañ leen jox si fukk kon moo am juróom benn téeméeri bureau ak lu topp yoo xam ne existé wu amul foofu la yëf yi amul cent et quelques bureaux de vote yooyu nanu calculer rek muy trois cent wala quatre cent vote fa parce que doo xam lañ ca dugal waaye suppose ñaata ñaata lay doon dina jege trois cent mille voix maanaam boo ko tenqee ca lañu ñu am man nga ne man ngaa jàpp ne référendum résultat ba ca génn bokkul ak ba waroon a génn ba ñu toogee 3 décembre 2016 ak président de la république mu ne. premier décembre. mu ne waaw mais damay dégg ñu naan euh, bureau de vote fictif loolu nu mën a amee jàpp na man ne xam na ko man jàpp naa ne xam na luy bureau de vote fictif waaye da koo laaj ma ne ko mooy nga dem ca commission nationale de recensement des votes. fekk fa ay procès verbaux yu jógewul ci benn bureau de vote réel loolay loolay loolay bureau de vote fictif ba ñu ko waxtaanee ca commission euh, nationale de concertation ba directeur de la DAF dane man day sama fichier six cent cinq cent et quelques bureaux de vote moo ci nekk waaye 1213 yooyee ca 2016 ba ñu ñëwee 2017 dafa dellu 600 et quelques dégg ngeen wax ni de xanaa kay daa war a yokku mbaa bokk mu yem fam foofa ca 1200 waaye dafa wàññeeku kon mooy war a ne bureau yooyee ñu doon wax amul élection présidentielle bii bureau de vote yi ne bitim réew juróom-ñaar téeméer la ak lu topp te ba ñu wotee 2016 ci référendum ba ak léegi man na man na ñetti at daanaka mat na ko sax kon ñu jógee ca ñetti at yee ca ginnaaw junni ak ñaar téeméer ak lu ci juróom-ñaar téeméer te ñuy wote dañoo war a kon loolu li muy wane foofu laa koy yemale li muy wane mooy ne bureau de vote juróom benn téeméeri procès verbaux yoo xam ne béngoowul ak benn bureau de moom la ñu génne def ca lañ cay def ne gagné nañu référendum boobu ah, loolu xam naa cay jamono ban ko waxee sax daanaka nit ñi duñu ko woon déglu nañu ko war a dégloo ndax ñee itam dañoo ami nit ci presse bi ngeen baal ma nag waaye looloo am waxtaan moom wax dëgg yàqu ko waaye ñu ne ah ay ay mauvais perdant lañu rek dañoo ñàkk rek moo tax ñuy ñuy wax waaye nag nii la mbir mi demee bu fekkan ne euh, ca réew ya ñuy wax la ya ñuy tudd ndax man dama jàpp ne euh, nit ki soo xeebee sa bopp ku la xeeb tooñu la soo xeebee sa bopp ku la xeeb tooñu la ndax lii nuy wax fii junni xelum tubaab mënu koo xalaat maa ngi doon laaj sax ndax France boo fa demee euh, ñoom euh, euh, nu mu tuddati Macron ñoom Fillon ñoom hein waaw ak ak le gars gauche là Mélenchon est-ce que dinañuy am ay représentants ci bureau de vote déedéet awut jomb nañu ko jomb nañu ko dañ koo jomb fii nag danoo jàpp ne su opposition nekkul ci bureau de vote jaadu nañu sàcc ko jaadu na ka sàcc bureau de vote ba duñu ko ne ab sàcc nga dañ naan yéen ña fa néewloon ah waaye yéen nag da ngeen faa waroon a ne kon nag war nañ koo mën a sàcc amul problème da wax est-ce dinañ ne représentant Hillary Clinton a ngi représentant Donald Trump mi ngi nii ci bureau xel xalaatu parce que jomb nañ voilà euh, ma yamale point boobu foofu li ci tegu mooy euh, <laughs> ci bii weesu dafa amee mbir département damay kon commencé ci chiffres yi parce que yooyu moom moom ngeen soxla ngeen waaye eh, bu ko dee après nag nu mën a commenter maanaam nu mën a saraa waaye nag dañuy joxe chiffres yi ba ku xam ne ñii li wax lu kenn mënut a teggi la ma sañoon bu nu noppee la ngeen dem laaj leen ñu tontu leen ci lii nuy wax ñun duñ leen ci tontu ba laa yow mi diini xanaa xas nu dinañ nu xas <laughs> mu euh, voilà